centrale d'achat pour centraliser lépp loo xam ne ay achat public la ndax réew moo xam ne direction bu nekk direction générale bu nekk ku nekk yaa ngi yor sa budget léeg am say nit di passer say marché ñuy surfacturer lu waroon jar téeméer ñu jëndee ko euh, junni loolu mënul wéy mais loolu bi ma ko annoncé ba pare demal France moo fa am France kay moo ñu gën a développé foofu ëpp ñu moins mais France centralisation des achats publics moo fa am Allemagne moo fa am feneen ak feneen bu ñu nee nañu rationnel te li may wax nii bu ñu ko dajale yëpp li ñu war a def ci économie ay milliards la est-ce que taxaw fële bëgg a def politique rek naan waaw euh, ay ay détails la ñuy toppatoo ay machine li ñuy jënd ci imprimante te at wu ne presque ñu remplacer ko ñu changer ko boo centraliser woon niveau bi yëpp nga def benn imprimante ñaata nga économiser ci ay millions boo ko defee à sur l'ensemble de l'administration c'est des milliards qu'on va la réduction du train de vie de l'État farata la ci ñun ndax réew yi ñu ëpp doole fuuf da ngay xool les pays ñu ñu ëpp doole fuuf ay Suède ay Écosse ay ñoom seen norvége mais dañuy jënd quelques auto teg ci digg bi ci digg service bi ku ñëw liggéey si boo amee mission booy génn nga dem lenn saa ñu ne la xaaral ba ñaar ba ñett génn chauffeur bi yóbbu ñëpp teg indiwaat keroog maa ngi seetaan reportage Norvège ci lu mel noonu mais fii da ngay jox ku nekk oto jox ko carburant ainsi de suite ainsi de suite loolu bokk na ci nga xam ne yu ñu war rationaliser la moo tax li ñu wax léegi ci les bus de ramassage bokk ci solution yi la bokk parce day tax nga économiser ci waay yooyu donc yàqanal ba réduire le train de vie de l'État ci bépp fànn ba ci masse ba ci yeneen ak yeneen suñu nee masse salariale nag c'est pas qualitativement c'est quantitativement quantitativement politicien bu jog dem jël say mbokk yépp dugal keneen ñëw jël nga gis service boo xam ne li lu ëpp xaaj bi du ñu nécessité de service amuñu sax liggéey foofu amuñu poste d'emploi mënoon lii la ñuy liggéey Sénégal ngay gis ku ñuy fay sa te du teg tànk ci bureau ba ñu ne léegi loolu nañ ko continuer bàyyi ba kañ yàqanal boobu nag moo taxoon président de la république ne lu mel ni conseil économique et social ak HCCT yu doon dafa jot nag ñu dindi leen fi ndax milliards yañ ci économiser xaj na feneen nee nañu ñoom ñoo yor majorité assemblée nationale ba bloqué nañ ko waaye loolu du ñu teye def li ñu war a def ndax gëm naa ni tey jii euh, njiiti jiite kuréel yooyu du ñu fanaan en tant que président de ces institutions te dinañu fexe ba benn fistine dootuñu ko dépenser yu jóge ci institutions yi parce que ñun xam nañ li xew en fait c'est les vache à dañuy alimenter les circuits des partis loolu rek moo tax ñu ciy rey seen bopp waaye askan bi taxu leen a jóg Sénégal taxu leen a jóg loolu nag nañ ci jël ay matuwaay yu mat sëkk lañu ñu diglanteeg Sénégalais yi ci defaraat réew mi teg ko ci yoon ci bépp fànn gannaaw yàlla gis ma lu ko mën a tere de mun nañu xëy saa yi ñu xëyee takk rajo am seeni presse ñuy bind waaye loolu yëpp ay weqatu la d'un système finissant dafa am loo xam boo ko buggee changer foog mu am des embryons de résistance c'est pas de la résistance de man xam naa luy résistance c'est des embryons de résistance waaye jeex na takk bu soobee yàlla te gëm naa nit li ma leen ne motion de censure du am te assemblée nationale gën saa gudd une dizaine de jours moo leen fa dese sénégalais yi tànnaat assemblée nationale buy permettre au président Bassirou Diomaye Faye mu doxal appliquer sa politique ñu gis résultat yi le plus rapidement possible lii lépp nag nga xam ne ay exigence la ay nit tam boo leen buggee teg lu diis ne maa ngi xaar ci compétence engagement probité loyauté ak yeneen ak yeneen il faut nga góorgóorlu it améliorer seen condition du question pàccoo nag waaye liggéey bu nekk ñaq bu ne dafa war a ànd ak payoor payoor nag bu jaadu la ñu bëgg a wax moo tax it euh, dinañ def suñu kéem kàttan ndax wax dëgg yàlla euh, niveau payor bi fii ci primature xaw naa néew ci li ma gis bi ma ko xoolee te loolu contradiction la sax suñu ne primature mooy mooy kilifa administration yëpp kon faw ñu góorgóorlu ci euh, améliorer loolu loolu it def naa ko ci sama yitte eh, nee naa léegi ci nasaraan bu leen jàpp ni nag engagement signé la waaye lu ñuy liggéey la te nañ ci def liñ ci war a def am na lu ñu ci commencé déjà ak ministre des finances ak DAGE te dinañ ci gën a góorgóorlu gëm naa ni di ngeen gis résultat yi bu soobee yàlla lépp lu jëmit ci eh, conditions yi nga xam ne mooy tax nit ñi liggéey ci xel mu dal am nañu ko fi tudd wax naa ko dage depuis des mois bi ñu nekk bâtiment bële nee naa ko waxal personnel lu ñu organiser wu taxawal association bu yaatu defar mutuelle bu boobaa ñu mun dinañ mën a jaaree foofu xool nu ñuy accorder une subvention pour les tickets de restauration ak yeneen ak yeneen peut-être euh, ñu ciy jàppee bu baax a baax euh, euh, ba ci lépp loo loo xam ne day parce que liggéeyu administration liggéeyu xel la la plupart du temps mais xel moom pour mu xel li bu baax a baax il faut que yaram yu wér moo tax yu bëri wax na ni euh, jox naa instruction sax pour ñu defar fi salle de sport te boobaa nag dinaa ko boole ci critère de notation yi amul amul mag laak ndaw ak ñoom seen ñëppay sport parce que je des agents qui soient en très bonne forme pour mun a euh, def liggéey bi ni ñu ko bëggee ak yeneen ak yeneen ba ci salle de santé bi euh, parce que nit rek lañu nit machine la à tout moment lu ne mun na am tax ñu installé fi salle boo xam ne les premiers secours nañ ko mun a def wala sama genre yi nga xam ne bu ñu bëggee bu ñu bëggee nelaw rek daal di wax bopp buy métti ñu leen jarul dem hôpital docteur Thioro gi fi ñu jox lay quelque kii rek nga delluwaat yooyu yooyu bokk na ci ba ci xool nu ñuy nu defee ay crèche nga xam ne euh, jigéen ñi nga xam ne dañoo toll ci yor euh, bébé mun su ñuy xëy andi seen bébé mu nekk seen suñu liggéey tuuti mun a wàcc xool ko seen xel dal ñu mën a sëgg ci liggéey bi yooyu yëpp ay xalaat la yoo xam ne ñu ngi ciy commencé liggéey pour euh, li nga xam ne dina dina ñoŋal liggéey bi ba ci le bus de ramassage également wax nañ ko fii kon daal li ma leen bëgg wax fii mooy li ñuy xaar ci ñun li président de la république di xaar ci ñun du rëy rëy la pour ñu liggéey ko il faut que l'esprit d'équipe ñu xam ni équipe mooy liggéey kenn ku ne li mu war a def mu def ko waaye li mu war a séq ak moroomam ci liggéey mu def ko ci anam ñu gën a rafet ñun ñëpp ñu porter projet bi loolu tekkiwul ni dama damay def politique déedéet mais ki yàlla fal mu ñëw ak projet am juróomi at yi nu mu tuut tuut tuut juróomi at yi projet boobu mooy projet Sénégal kon kuy fonctionnaire projet boobu moo la tënk bu la neexee boo wàccee demal nga def sa politique feneen ñun loolu ça ne nous gêne amuñu ci benn problème mais tant que yaa ngi fi na nga engagé wu à cent ci projet bi jox ci joxe le meilleur de toi-même pour projet bi